واغفر لمن أناب إليكم رب فاغفر لمن أناب إليكم euh, man maa ngi tudd Alxaaji Maxtaar Njaay euh, nekk euh, président commission accueil nekk adjoint secrétaire à l'organisation nationale nekk itam membre bureau national COSCAS waaw Coskas de moom mën naa wax ne samp mag la waaye nag am na lu ko sabab ndax lu nekk rek day am sabab parce que Coskas 68 kenn ku nekk xam na ne moo doon grève bi gënoon a métti ci Sénégal ci jamono yooyu parce que booba mën naa wax ne Dakar région yëpp amoon nañ ay yëngu-yëngu ci xale yi ci grève bi jamono yooyu mu tombee gàmm bi mu tombee gàmm nag ah état bi it mënul euh, sécuriser maanaam ni mu waroon a indi ci force de l'ordre pour mu assurer mawlud bi ak li ci aju lépp ah mu amoon ci ay jafe-jafe wax ne loolu du ko mën mais li mu jotoon a yónnee ci ay éléments bi ñu ñëwee dañ ne Serigne Cheikh daf ne nañ ko yóbbu suñu kër euh, maam ju baax ja alaaji euh, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh ah ki nga xam ne moom kenn la woon Serigne Cheikh na nañ ko yóbbul euh, force de l'ordre yi foofu a ah, ci la waxee woon Serigne Abdou ak góor gu baax gu ñuy wax Ibrahima sàmm am na ay mag yu bari yu fi nekkoon ci kër gi am na ñu ma ci mën a cité en tout cas mu wax leen na leen kër gi garde yi ay góor lañ garde yi ay góor lañ ah seetal ci kër gi ci ñi fi nekk nga seet ci xale yoo xam ni danañ am matuk mën a jàppale ñii ñëw taalibe yii ñëw ci organisation bi ba duñu am benn jafe-jafe ñu tànn ci juróom-ñaar fukki góor ak benn maanaam ci jamono juróom-ñaar fukki nit la woon ak benn juróom-ñaar fukki nit yooyu ak benn bi ñu leen waxee li nga xam ne lii moom lañ bëgg ñu joué bi nga xam ne mën naa wax ne ci wàllu organisation jàppaleen nit ñi taalibe yi ci buntu kër kilifa yi ñu war a mën a gisee ci lépp bi gàmm gi jeexee ah ñoom li ñu gis mooy ah garde yi daañu dellu si de waaye lii moom bu mu fi jógewaat parce que ñi fi nekkoon doon nañ xamanteek mu xaddam yeeg président daayira yi président fédération yi ci laami soo xàmmee ba tax na jàpp jàppandal lu bari daf caa feeñ ñu ne nag lii bu mu fi jugati bi gàmm gi jeexee Serigne Cheikh dellu Dakar ci la woo Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin mu ànd ak délégation ba mu àndaloon ci ma wax sànq Alaaji Ibrahima Samb ah ñu mu leen kët lii dafa mel na kër gi mun la ñàkk mouvement d'avant-garde te lii comme kilifa yi nee nañ bu mu fi jugati kon lii na ko continuer jël alif laam miim moom seeni Cheikh na leen ngeen def ko muy seen téere wattan alif laam miim même boo ko déchiffré juróom-ñaar fukki lay doon ak benn moo tax lépp loo gis ñu ne la koskaasu ko moom boo xoolee danga nga cey gis alif laam miim parce que juróom-ñaar fukki ak benn ya nga xam ne ñoo yore war organisation bi ah ci nitu yàlla bi mu leen joxee li nga xam ne mooy loxo koskaas bi alif lam mim la ci loolu ah ñu continuer ak organisation mag ñi taalibe yi ah sunu góor gu baax ga alaaji Abdou Aziz yàlla na ko yàlla doon leer sunu maam ju baax ja mu wax sëriñ Abdou na ko lii limite bi ñaata la mu wax ko lim ba mun na ko yokk leen ko Serigne Mansour ne yokk leen ko xam nga moom ci kéem dafa dem sax ba ne bu leen ko wutale ci limite ci jamono yooyu nee naa la ñi ñi ko njëkk a sos moom juróom-ñaar fukk la woon waaye nag dañuy def gàmm gu jot comme nee nañ lii na continuer nit ñi ñëw nag di adhéré waaye itam demoon nañ bañ na dañ koy maanaam limité mais kilifa yi mujj d'accord alaaji Abdul Aziz sunu maam ju baax ja Serigne Mansour kilifa yëpp joxe ci ndigal ne bu ñu arrêté ci lim bi nañu ko organiser yokk ko moo tax fii mu toll nii ba léegi nii mën naa la wax ne la sept mille om nekk nañ en tenue ci li ñu xam ne lii tey mën naa wax ne ay xale yoo xam ne yi ñu ngi ci dëkk bi sept mille yoo xam ne ñoom ñëpp engagé wu nañ pour ñëw nekk ay membre actif pour nekk ci COSCAS COSCAS dafay fonctionner ci ñaari fonction membre actif mooy ñi nga xam ne ñoom nga gis ñuy sol tenue yi ñoom la ñuy wax membre actif ñi nga xam ne ñii nag après membre soutien yi mooy ñi nga xam ne ay taalibe lañ mais bëgg nañoo dugal seen loxo ci mawlud bi loola am na ay carnet yoo xam ne yii ci section yi lay nekk ñooña ci la ñuy def seen participation su ko defee loola la ñuy boole nag mu dugg ci organisation gàmm gi nga xam ne tey yow yaa nga ca sa dal di topp toppatoo sa dal waaye itam liy organiser gàmm gi sa loxo dugg na ci membre actif yi nag mooy ñun nga xam ne ñun dañuy jënd chaque année dañuy def dix mille francs mooy sa warugar ci gàmm gi ba pare sol tenue bi ñëw déglu kiñ la booleel parce que Coskas ci façon yi muy dox mooy dañ lay wax ne la doo ànd ak kala neex ngeen di def la leen neex mais dañ lay da ngay ànd ak kañ la booleel ngeen def lañ leen sant moo tax boo gisee Coskas ni commission yi bari na parce que mën naa dox wax ne commission bii rek accueil la boo génnee fii am na commission yu ñuy wax gindi am na commission yu ñuy wax barrière am na commission santé am na commission escorte am na comme dafa bëri ordre accueil mosquée ba pare kër sëriñ si yëpp foo ci dem encore COSCAS yóbbu na fa benn effectif boo xam ne bi ay membre COSCAS lañ foofa la ñuy nekk ñoom it ci kër kilifa ga nekk ci ndigalam ak kañ leen booleel di ci déglu ci seen ndigal ba gàmm gi jeex ñu dellu si ñu yeewi leen ñu ñu dem man commission bi ma yor akay la tudd léegi mais ci ay jamono temps wu alaaji ibrahima sàmm mi ma lay wax booba mi ngi tuddoon xee et turbine ki yore woon commission bi di sama grand bu baax ñu ko doon wax alaaji Ngalla Pay yàlla ko yàlla dolli leer eh, moo jiite woon commission bi booba amul lii fi nekk nii wax dëgg yàlla booba amuñu ko woon mais booba commission bi nag booba la metti woon parce que xee ñoo daan ànd ak kii maanaam euh, force lool militaire yi bu ñu ñëwee installé lu turbine yi ba pare ñun ñoo koy installé suñu bopp ci chaise yi installé biir bâche bi yëpp euh, pare encore def benn xee parewaat encore di di contrôler carte yi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëw ci fi ñuy defee cérémonie booba xee et turbine la tuddoon ba tey léegi nag mu tudd ak accueil ba léegi ñun ñoo yore mboolem luy accueil place bi accueil mooy accueillir nit ñi danañ def xee bu subaa ci ngoon comme li si cérémonie bi rangeler koskaas yi ñu def benn xee bu rafet accueillir bu euh, bu rafet porte yi nga xam ni yëpp itam fa la nit ñiy jaare daan fa teg ay éléments yoo xam ni ñoom it ñoo fay nekk di contrôler carte yi nga xam ni ñoom ñoo war a ñëw ci cérémonie bi euh, accueillir pèlerin yi loolu ci même dañoo yore commission bii nun rek mais li ñu wax mboolem membre COSCAS yi mooy képp koo xam ne kii yaa ngi sol tenue COSCAS jàppal ne accueil nga ndax képp ku jóge feneen di ñëw ci bis bi ngir yàlla ak yonent bi guddi Cheikh El Hadj Malick gi nga xam ne dafa waxoon ne mag mu amul lu dul benn dëgg di ko wax ci genn guddi di ko wax ci mennum at bu sañan bu koy wax képp ku njabootam ñëw fekk si ab commission la mooy accueil moo tax gis nga bat yi nga gis yëpp accueil lañ ciy def accueil léegi nag ñoom bu subaa ci e, moment bi cérémonie bi war a commencé ñun ñooy taxaw ci porte d'entrée yi di accueillir nit ñi di leen yóbbu ci seeni place ànd koog sax waa Esplanade waa Esplanade ñoo ko bokk léegi ak ñoom di organise ci biir salle bi ak ci bi. waaw ku bëgg a bokk ci Coskas xam naa li ñu gën a tàmm ci Coskas ku ci bokk mooy bala nga cee bokk d'abord nga bëgg ko. waaw nga bëgg ko ci sa xol ne man wax dëgg yàlla day bëgg naa bokk koskaas ndax koskaas daf lay wax ne la pour nga bokk ci foi discipline discrétion foi bi mooy na nga ko bëgg ndax boo ci xasee ba ñëw ki nga amal affaire service bi koskaas comité d'organisation au service xalif Ababacar Sy soo xasee ñëw nag ba dugal sa loxo bugguñu nga dellu gannaaw dañoo bëgg rek toujours ngay avancer te boo duggee ci dara te buggoo ko ay fan rek man nga cee eh, génn te loolu gënul ci taalibe eh, discipline bi mooy ngay fois discipline discrétion discipline bi mooy kiñ lay booleel parce que mën ngaa ñëw fii ak noo mënti toll boo bokk ci koskaas ñu ne la yow lii ngay def demal ca daral ba nga toog foofa di upp weñee sax loola li ñu bëgg ci discipline bi mooy nga xam ne loolu dañ la ko sant yow yow ci loolu ngay amee la ngay am Ibrahima Samb daf daan wax ne buñ la yóbboo daral jox la wantaay ngay upp weñ ya nga bàyyi fa loola ñëw di upp Serigne Cheikh wala Serigne Abdou doo ci am dara ndax defe woo ko ci ndigal ndigal la mooy fañ la waxoon ne la dem fa rek yow nga dem fa période gàmmu mooy préparer ko rek parce que lu toll ne organisation mawlud ku koy def il faut que nga préparer ko commission yi danañ réunion lu baree baree bari aju ci sunu responsable moral sunu président national maam Ousmane Samb ah moom itam mu déglu sunu responsable moral Serigne Moustapha si Al Amin mu déglu sunu xalifa bi Serigne Babacar si Mansour ah ñoom ñoo koy moo leen koy moom moo koy jox ndigal ci ni mu bëggee a doxe leen weeg taxawaay yeeg taalibe yeeg dikkiin week dellu bi yëpp ah Serigne Moustapha di ko bàyyi ci loxo maam Ousmane maam Ousmane di ko bàyyee dinu ko jox Khalifa Niang mu dinu woo di ci waxtaan ak ñun ndax euh, organisation bi ñëpp ko séq kon balaa ñoo agsi ci bis bi commission yi ko war a saytu yëpp ku ci nekk danañ réunion ay yooni yooni yoon di ko préparer ndax bu ñëwee rek ci kàttanu yàlla ak yonent bi ñu ñaan ci yàlla réussite fi mu toll nii day wax dëgg yàlla ah man nga ne organisation bu toll nii eh, ndax maa ngi fii xëy na ñeneen a nga feneen ñeneen a nga feneen waaye daal macha allah jàpp nañ ne daal ba fii mu toll ni nii gisaguñu amaguñu benn problème majeur boo xam bii mën nañ ne lii téye na Coskas ñu ngi ciy liggéey di ci ànd ak niñ ñu ko sante di ci ànd encore ak force de l'ordre parce que ñoom it il faut ñu gërëm leen sant leen ci collaboration bi nga xam ne am na ci seen diggante ak ñu parce que xam nañ ne ñoom dañoo ñëw pour jàppale nu non seulement pour sécuriser nu mais jàppale nu ci organisation bi amuñu benn problème ak ñoom comprendre nañ liggéey bi ah loolu itam wax dëgg yàlla dañ leen koy gërëmee di leen ñaanal yàlla yéen itam ñu di leen sant di leen gërëm parce que bari na fu nit yegg yéen a ko fa yeggale kon yàlla yàlla bokk jàppale leen dëgëral leen kaweel leen